dëgg la daje xéewlu daje ziyaarante baax na waaye nag roy ca ci ay jikkoom yu sell yu tedd yooyee mooy da ko gënal roy ca maandoom nga roy ko ca wayafam nga roy ko ca bëgg yàllaam nga roy ko ca léppam fii kulliyati su nag laaj na ñett jikkoom yoo xam ne war ko caa roy muy jikkob maandu muy jikkob jéggale fekk man ngaa fayyu loolu ay jikko loolu sa sallam maandu wax ba rek xam nga lislaam moom xamul yamale maandu la xam ñu ñooy wax yamale lislaam moom maandu la xam maandu mooy ku nekk jox ko xàqam maandu say doom maandu ji say soxna maandu ci say ñi nga ñi nga yilif ñëpp maandu mooy nga yamale mooy nga jox ko rek xàqam amaa yamale moom lislaam xamul loolu ñoo koy wax rek naan ni day yamale waaye ñu day maandu boo jëlee ñaar ñoo xam ne tollawuñu nga yebal leen maandu woo da ngaa tooñ su boobaa su nga def su boobaa kon maandu mooy nga maandu nga yamale ñi nga nga bokk nga maandu ci biir nga xam ne ñoom nga yëg ki atte maandu ci mi atte loolu jikkoom la ju ne la waaye tam digal loo xam ne digal nañu ko mooy ñu maandu waaye tam baale fekk mën fayu loolu jikko bu am solo la ñu tooñ la baagal nga mën a fay bu noppi yow nga tànn baale waaye maanaam tànnoo jekkile waaye da ngaa tànn jéggile ñu tooñ la ñaane sa kanam jéggaleeg jekkale yow nga tànn jéggale bañ a tànn jekkale su nga wax na ko ci bi ko noon bi jëlee bu ko ci géej gi tooñ ko bàggal ba mu ñëwee dani bànnaa leen a afawtu an il aadai maa saf bi kalkali baal naa noon yi te kat ba leen baal fekk na xol bu sedd laa ci àndal xol bu sedd kon ci waxtu yi nañu jël ci jikkoom yooyu kon muy maanaam maandu maandu waaye te nga xam moom mooy jéggale fekk fekk mën man mën ngaa fayyu ata bokk na ci nag bokk na ci fonk ko mooy topp sunnaam topp aw doxiinam nam daan jaamoo yàlla nam daan jëflante nga jëflante noonu loolu tam lu am solo la ci loolu lu am solo ci loolu waaye te bokk ci nag ci sopp ko topp ko mooy bu ñu tuddee aw turam nga julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam da si moom da neewoon na ab nay buñ la ko dee wërloo bul sonn bul dugg ci mbedd yi ab nay nee na fekkal koo xam ne rek dañoo tudd sama tur te jërwul ci man neen am nay bopp piir neen am nay koo xam ne dañ koy laa joxewut kooku daa nuru nay waaye innamal baxiil neen nay piir mooy koo xam ne dañ may tudd ci moom te julliwul ci man kon saa boo déggee turam wu sell woowee teg ca sallallahu alayhi wa alihi wa lu may dangaa koo xam ne xëy na fu ñu ko la sopp ko nag sopp ko ndax ko sopp topp ko maha mahabbati al muxtaara sayidana xubbil maganiya wal ahlina wal walada si tuwaa rek ni mu toppee nabi sal loolu mooy dëgg nee na nabi sal doo ko bëgg ba nga xam ne bëggatuma doom bëggatuma alal bëggatuma kenn moom rek laa bëgg rek laa bëgg bu dee julli ci moom gi salaatu sitta bi madixi sitta taatihi batta maa tisaai bu dee julli gi moom dafa xaaj dafa xaaj dundam gi ñaari xaaj xam nga at fukki fukki weer ak ñaar rek la fukki weer juróom-benn weer yu jëkk yi muy julli ci moom julli rek la def ci moom yeneen juróom-benn weer yi muy mu di ko tagg salaatu sitta bi madaxi sitta taatihi batta waaye nag maa sa ànd ak di ko roy ndax koo sopp roy ko te koo roy topp ko yan yàlla defal bëgg sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal yàlla xëy ñu bëgg nabi sallam bu ñuy faatu yàlla nañu faatu bëgg nabi sallam ëllëg yomal xëy bu ñuy dekki yàlla nañ dekki waale bëgg nabi sallam yàlla nañu dëkk aljanna ëllëg ak nabi sallallahu alayhi wa sallam rabbana laa tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana